alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal wa maulana muhammadin il wa ala alihi wa sahbihi wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul xuqdatan min lisani yafqahu qawli barke borom Tuubaa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yi Eh, ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci Seexuna Ahmadul Xadim noo ngi abaan mbégte di leen nuyu ci jataay bi nga xam ne moo di xawlal masahibil arba te seen mbokk Abdul Sëriñ Abdul Ahad Sané di ko ànd ak ñun ñu di ko amal bis bu set fii ci seen télévision Lamfal TV mbokk yi ñu jaajëfal bu baax mbokk yi ñu topp ci émission bi weesu te mu jëmoon ci xamle imam ju mag jooju di imam yaakaar naa ne bokk yi jot nañoo dégg euh, Malick fi mu feeñe jamono li mu dund ci ay at sëriñ si ko jàngal ñi mu jàngal moom itam ak euh, euh, fi nga xam ne fi la gën a qualifié ci wàllum njàngam te loolu lépp jëm ci wàllu fiq ak hadis incha allah rek sunu jotaayub tey ginnaaw bu ñu nuyoo sëñ Abdou Lahad nuyu téléspectateurs yëpp mooy gën a xóotal rek ci mbirum Fóori Jirey jooju imam Malick ndax dañu wax ne ku jàng ci lu mat juróom-ñetti téeméeri sëriñ ñàkkut na ay déplacement bari na ci yow euh, ndax sëriñ sëpp dañoo nekkoon benn barab wala sëriñ sëpp it ñoom ñëpp ay euh, benn matière la jàng ci ñoom wala fu ci nekk daa am lu mu fa jànge euh, moom imam Malik ak it ndax bi mu so sañcee daaraam ci benn barab la toog jàngale ba génn àdduna wala toogut ci benn barab jàngale ba génn àdduna loolu fas ci lañ fas yéene ñëw ànd ci ak sëriñ Abdoul Ahad Sané kon mu bàyyi ko mu daal di dugg ak ñun ci tomb bi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte dajawaat ak yéen ci sunu jataay yi di jataay yi xawla al aimati al arbaa mu doon jataay yoo xam ni jataayu jàng ak jàngale la ci lu aju ci dund ak liggéeyu njiitu yooya nga xam ni ñooy al aimatul arbaa ak seeni naataangoo ci boroom madahib yi nga xam ni seeni madahib dafa raaf tey e, jataay wi weesu taxawoon nañu tuuti ci lu aju ci al Malik ci dundam ak njàngam ak ay sëriñam ak i taalibeem ak dayoom e, ci xam-xam tey nag dañuy euh, wéyalee bunt boobu ba tey te mooy imaam Malik loola ñu ko waxal ci ay sëriñ fan la leen fekk ba ñu jàngal ko ak naka la jànge ci ñoom boroom xam-xam yi wax nañu te mu doon loo xam ni dañ caa dëppoo mooy Malik njàngam lépp lépp lépp ci Hijaaz la Hijaaz bu ñu la ko waxaan ñaari dëkk ci ëppoon solo te mooy Makka ak Madina njàngam lépp Madina la ko jànge ak as lëf su mu jànge Makka euh, sàkku xam-xamam muy njàngum alquran euh, jàngum xam-xam ba na muy beroo sëriñam yëpp Madina la ñu nekkoon wala bu masaa dem haj wala umra ay daara yu fa nekkoon daan na fréquenté daara yooyu doon jël ci sëriñ yooya fa nekk hmm. kon ku mu jànge ci yow dëgg la du ñëpp ñooy ay waa Madina waaye Madina nga ko fekk mu jàngal nga jàngale ko nga jàngale ko foofa mm-hmm. ndax Madina moo nekkoon capitalu xam-xam ci jamono yooyu yëpp mm-hmm. dale ko ci jamonoy saxaaba yi ba ci jamonoy na yi ba ci jamonoy taabiu taabiina yi ba ci jamonoy tabaul atbaa lépp fekkoon na Madina mooy capitalu xam-xam boroom xam-xam yépp ci àdduna boroom xam-xami lislaam yi amut kenn koo xam ni mënoon ngaa daan na daan nañu daan nañu euh, euh, daan nañu jéggi Madina mm-hmm. ndax saa yu ne ci seenu xër seenu mbaax seenu cofeel gi ñu am ci yonent bi dañ daan ñëw daan umra si euh, ziyaare si xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw julli si jàkka ji daan nañ fa def ay fan daan nañ fa def ay weer am na ci ñoo xam ne sax dañ daan ñëw def mu jaawara mm-hmm. dañ daan mu jaawara ñëw lu mel ni xal la rek mm-hmm. waaw mu jaawaray at mu jaawaray ñaari at mu jaawaray fukki at am na ñu ko daan def moo tax euh, Madina doonoon xaadiratul ilmi ci jamono yooya xam ne xam-xam lépp foofa la moo na kon jumbax bi nga xam ni xam-xam l'islam yëpp fa la concentré woon ndax ñëpp fa am soxla mhm. ndax yonent bi fa tëdd dëgg la ñëpp fa am soxla ndax euh, jàkkaam jafa ne mhm. ñëpp fa am soxla ndax euh, doomi saxaaba yi ëpp fa la ñu nekkoon mhm. ci jamono imaam Malik kon ku fa ñëwoon yonent bi tax laa jóg ziyaare si julli ca jàkka ja wala mu jaawara daan leen tax a jóg ñii daan fa ñëw ngir sàkku si xam-xam moo tax benn carrefour la woon rek woo xam ni lépp nga fa woon moo tax ku dëkkoon Madina soxla woo woon di génn di jéggaani xam-xam fu mu mën a doon ndax boo déggee ab boroom xam-xam ca Iraq ca Bagdad ca Cham ca Misra kooka du toog ab diilu dut ni ñëw na Madina la nga soxla ci moom nga jànge ko ci moom moo tax ña ko jàngal ñëpp mu am chance u hmm. comme dafa doon doomu Madina dëkk fa juddoo fa màgge fa jànge fa mu am chance u dajeeg boroom yooyu yëpp ku mu dajeelul ak yow ca Madina daje na ak yow ca Màkka eh, jàng ci yow eh, loo xam ne dana ko dollee ko walis xam-xam ya nga xam ni moom la fekk moom la fekk Madina jànge ko Madina kon Malick am njàngam noonu la demee woon eh, jataayam jooja it nga xam ni mooy daaraam jooja mu doon jàngale mu doon daara ju takk ci xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola ca la nekk ba ni mu faatoo lu dut am ab diir boo xam ni buur ba fa nekkoon amoon naa ak moom ñàkk déggoo nit ñi ruuxale leen ba mu fitnaaloon ko waaye teewul eh, daara jaam daaraam jooja dafa dafa continuer eh, continuer ci anam eh, goo xam ni anam gu yaatu la ndax daaraam ba mu sosoo comme ni ñu ko waxee daanaka dafa dafa dafa dafa raaf daara yooyu yëpp. Mhm. daara yi sëriñam ñëpp dañ mujje ñëw ci jataayam. nekk gi daara gi nekkoon it ci taqaarlu xabru yonent bi sallallahu alayhi wa dafa taxoon daara jooju mu am nu mu bindoo nu mu bindoo woon ci nu Malick doon forcé donga ya ñu tegginoo noona mm-hmm. ñu teggi noona ndax wetu yonente bi sallallahu euh, taxoon na moom bu bu daa ñëw di jàngale si da daan sangu janaaba ba set euh, sol yére yamu ya gën a taaru ca yamu am euh, gëttu gëttu ya gën a neex ca yamu am dal di ñëw toog di jàngale bu toogaa nit na mu tooge noonu lay tooge ba keroog jataay ba di yëkkatiku daawul ëlba daawul soppi toogin mm-hmm. benn yoon ndax waqaar wegu gi mu amoon ak fonk gi mu fonkoon barab bi nga xam ni moom la nekkoon mooy diggante eh, xabru yonent bi ak min baram diggante bu gàtt la mm-hmm. taxoon na dubal bi kenn yëkkati baatam foofa ak teengam ci wàllum njàngale yeggoon na ci boo toogeew toogin ba sa tànk nagam nga soppi ko mu ne la jógal dem mu dàq ak teengam yeggoon na fo toogu toogin ba sa tànk nagam nga soppi ko mu ne la jógal ndax moom daawu ko soppi nettali nañ ni ab jiit mas naa toog di jàngale jiit dugg ca tubéy ja fett na ko fa nee nañ fukki yoon ak juróom benn te taxul mu yëngatu ndax njàngale ma ak barab ba mu nekk ba ba mu paree jóg dafa daan waat so kon ku fonke barab noona di la jàngale ci barab boobu yow ndongo bi sëriñ bi fonk barab ba jaral ko loola kon yow bu ñu la nee bul soppi doxin aw mm-hmm. toogin mm-hmm. war nga koo mën a comprendre dëgg la dëgg la Malick noona noona la demee woon ci wàllu woowa mm-hmm. euh, doonoon nit ku fegu doonoon nit ku am wegeel buur yi dañ ñoo ko njëkk respecté lu njëkk euh, nit ñi jumhur bi peuple bi di ko respecté euh, doonoon na koo xam ni jataayam it xam-xam la fa daa jàngale la mu fa daa jàngale it mooy lu xew masala yi nga xam ne mooy njàngalem yonent bi njàngalay saxaaba yi ak lu xew ci jamonoom ñu laaj ko mu ubbee ca baaxoo woon na boo ko laajee masala bu mu mës a dégg mooy ndax li nga xew lii nga li nga laajte nii daa xew nga ne ko déedéet damay laaj pour ëllëg bu xewee mu ne ko xaaral ba ëllëg bu xewee nga doog koo laaj la ilaha illallah. moo tax kenn ñemewu ko woon. nit mas naa ñëw ci moom laaj ko ay laaj yoo xam ne laajug lëntal la. la mu ko tontu ba mu ko tontoo ba pare dafa ne ko jógal bu fi ñëwati waaw tontu na ko ba pare ne ko jógal bu fi ñëwati mooy que ñëwoon laaj ko ne ko arrahmanu ala al arshi istawa kayfa istawa yàlla nee na dafa eh, istiwa ci arash naka la nekkee ci arash mu sëggëb diir ñàkk tooy xepp ne ko al istiwaawu moom maanaam yi day bu dee ci làkku arab xamees na ko waaye istiwaa ub yàlla wal kayfu majhul istiwaa ub yàlla kenn xamu ko wal imaanu bihi gëm ni gëm la mu wax ca boppam daa war wa su su'aalu anhu bidaa laajte luy maanaam istiwaa ci boppam bidaa la te bu fi ñëwati jógal laa ilaaha illallah macha allah eh, nit ñëw na ci moom ne ko man day dama amoon laaj dama amoon lu ma bëggoon ñu waxtaan ci mu ne ko waxal ma dégg mu ne ko dama bëggoon ñu discuter ci wàllu pas-pas booba xeeti pas-pas yu ne dugg na ci li ñëw nañu commencé di eh, fekki lislaam alqadariya am na ñu ne dogal amul eh, aljabriya am na ñu ne tànn amul yàlla moo forcé ñëpp jarut kenn di sonal boppam mutasi mutazila yi bari eh, jahmiya yi bari xeet yooya bari lool nga xam ne dañu jël yoonu pas-pas wu bokkul ak njàngalem yonent bi am kenn ci ñoom ku ñëw ci moom ne ko damaa bëgg ñu mu def mu naafara moo ñu def débat maag yow débat contradictoire mm-hmm. mu ne ko debaa ci lan mu ne ko ci pas-pas ci wàllu xadar Malick ne ko bu ma la notee nag bu ma la gañee mu ne ko ma bàyyi li ma jàpp topp la mm-hmm. mu ne ko yow boo ma gañee nag mu ne ko nga bàyyi li nga jàpp topp ma mu ne ko keneen bu ñëwee gañe ñu ñun ñaar nag mu ne ko ñun ñaar ñëpp ñu bàyyi li ñu jàpp topp ko mu ne ko yow ndekete amaguloo pas-pas yaa ngi sikki sàkk ba tey demal ci aji sikki sàkk ni yow nga mun munaabara ak moom nga def ak moom débat man li ma jàpp dama koo gëm te mooy li wér demal seeti sa morom man du sa morom ndax am na lu ma jàpp te jàpp ko dara comme yaa ngi am xalaatu ni man naa soppiku ji amagoo pas-pas amagoo pas-pas ah. kon demal seeti ku mel ni yow la ilaha illallah fulla jooja la amoon ci daara mm. moo tax kenn mosu koo yëpp kenn mosu koo eh, traité Euh, nu la neexee. kon daaraam da koo tënkoon. imaam Malik comme ni ñu koy waxee jamono yooya xam-xam fiq la woon ak hadis ku la ci gën a màcc euh, ñu gën koo naw yooya nag mu meloon ci noo xam ni junjoon nañ ko ci jataay wi weesu waaye dinañ ci waxaat rekk ni ay seere yoo xam ni ay imaam ñoo ko defoon ci moom. lu mel ni imaam Shafii daan na bari li muy wax lool. <clears throat> ida dukira al ulamaau fa maalikun najmu mu ne fu ñu tuddee boroom xam-xam yi rek nañu xam ni Malik mooy seen biddiw imaam Shafii ci boppam <laughs> ndongab imaam Malik la taxoon ak imaam Malik ab diir mm-hmm. donte mu gi am na madhabu boppam waaye teewul boo masaa tudd boroom xam-xam yi mu ne fu ñu leen tuddee day mm-hmm. seen biddiw mooy imaam Malik daan na wax ni maalikun xujjatullaahi ala xalqi nee na Malik layub yàlla la mm-hmm. ci mbindeef yi mm-hmm. lan mooy maanaa layub yàlla la ci mbindeef yi mooy ni doy na la sëkk mm-hmm. nga am noo doxale ci sa diine am noo ca waxe am noo ca àddoo doy na la sëkkuwu lay ca kanamu yàlla ne Maalik ma ko wax dëgg la imaam Shaafi ni la daan wax dëgg la mm-hmm. doy na la sëkk ca kanamu yàlla nga ne nii ma doxalee day ci mbir mii Maalik de moo moo ko waxee nii moo tax ma doxale ko nii imaam Shaafi moo daan wax loolu moo daan wax loolu eh, imaam Maalik nag comme ni ñu ko waxee Ahmad ibnu Hanbal it taalibeb imaam Shafii la moom it boromam ngir la moom bokk na ci fonk gi fonk imaam Malik donte gisu ko waaye sëriñu ay sëriñam la ay sëriñam la eh, moom wàllu fiq wàllu ra'yu da ko daa da ko da ko daa tere kemtalaayu kàttanam moo tax ñenn ñi ne du faqiya mhm. mooy ne ndax lu amul dalil mhm. da daa wax ni du ca du ca du ca wéy du ca yëy du ca yàbbi mhm. ba taxoon na ay taalibeem daan na leen wax ni bàyyi leen xiila xaala yi abu xanifa nee na abu yusuf nee na sufyaan nee na aw awzaa yi nee na dem leen ci alquran ak sunna xadis yonent bi ngeen jàngi ji fa loolu da ko daa wax waaye ànd ak loola yëpp boo ko masaa wax boo masaa waxu masala mu tumuraanke ci moom bu la laajee ku ko wax nga ne ko maali nga ko wax wala nga wax ko masala boo xam ni jàpp na ni bii de daa wuteeku xadis bu la laajee ku ko wax nga ne ko maali nga ko wax naan kon am na fu mu ko teg Allahu de am na fu mu ko teg donte moom xamul fu mu ko teg waaw waaye da daan wax ni kon de am na fu mu ko teg Malik mm-hmm. day ku màgg la Malik mm-hmm. neexut Malik ay waxam neexut a sànni lii la ci daa teg bokkoon na ci taxawaayam moom it ak maalik euh, gannaaw ba mu daa teree ay ñoñam ne bu kenn jël ci rayu yi fiqu abu xanifa ak fiqu yooyu yépp bu ko kenn jegee boo ko masaal laaj fiqu ka bu may demee bay jàng fiqu fiqu kan laa war a jàng mu ne ko demal nga jàng fiqu malik te do te mu doy la sëkk ahmad ibnu hanbal moo daan wax loolu boo ko masaa wax damaa bëgg a sóobu ci njàngum xadiis danaan la demal nga mokkal xadiis ya malik solo ba pare doog a mokkale leneen lii kon taxawaayu imaam ahmad ibnu hanbal la ci fonk gi mu fonkoon malik ak fa mu tegoon malik ci xam Eh, Malik nag yàlla dogal madhabam comme ni ñu koy waxee eh, madhab waxoon nañ ko ci jataayu jëkk wa ne mooy eh, jëmukaay jëmukaay yooyu ala kulli xaal da koo tënkoon ci téeréem bu ñu naan mu watta téeréem boobu nag di mu watta seere yu toll ni yañu seere ci moom la ñu seere ci téeréem booba mhm. ba imaam Shafii addu ca lamu ca addu mhm. kon dafa mel ni waxtu mi ñuy def Euh, ñu tënk foofu jataay bi euh, di leen jox euh, dig daje ci beneen jataay ci seen jataay yi xawla al aimati al arbaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Abdou Lahad jërëjëfati yaakaar naa ne mu ñu doon wax ana avocat Malick mën nañ daa indi yaakaar naa it li Cheikh Mouhamadul Mountakha waxoon ne kere ba ñuy daloo daara ji ci fekku la fi saw tur jiitu la fi. nee na woon ci moom rek laa gis koo xam ne li Malick bind bu raafoon ma jot na war na ko mën a génnewaat kon feeñ na ci jataay bi alhamdulilah yàlla nga ko jariñoo tan jariñoo ko eh, ñi sant bu baax ndax bu ma dégg waatee Malick ci pas-pas day mel ne sëriñ bi bi muy liim eh, suroti murid saadix yi ñaar eh, convaincre na ma ci Malick mooy salabul ixtiyaar ak tarkul ixtiraat daa mel na loolu moom Malick da ko da ca da caa sori da caa sori euh, kon euh, yaakaar naa ne mënees na ko woon boole ci murit saadix yi murit saadix yi moom imam Malick ci murit saadix yi ca madinatul munawara ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci leeral gi nga xam ne indi nga ko ci leeral euh, imam Malick yan nañ leen yàlla boole fayal leen ñoom ñëpp kon xam naa dañuy daal di tënk jataay bi foofu rek incha allah Eh, beneen numéro bi ci ñëw dañ ci dellusiwaat ci Malick incha allahu rabbi waaye rek ñuy yemale jataay bi foofu joxaat rendez-vous téléspectateurs yi ci beneen numéro wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.